ñu nee patrimoine daa mel ne dara génnu ci ci la ñu mën a laal ak li ñu mënta laal boo nee patrimoine xam xel dina dem ci aw dundin dina dem ci aw nekkin dina dem ci aw defin dina dem ci mbind yu nga xam ne sëriñ bi bàyyil nañu ko fi boo ñëwee ci saal bii dangay gis ñëpp sol ay turki njaareem di nga gis boo demee ci dëkkin wi nga gis suñu kër yi niñ ko bindee boo gisee xasida yi sëriñ tubaay yi ni mu toll ni mu mel ni mu rafete boo demee ci calligraphie bi nga gis bindin wi nga xam ne sëriñ bi dañu ko fee baal patrimoine daanaka day lal pàcc yépp boo ko waxee mooy lal nga xolu xolu nit ñi mooy li tax ñu doon li ñu doon te mooy tax li dooni ëllëg doon lami doon doon njàngale mag ñi liñ fi baax rawatina sëriñ bi day njariñu àdduna sépp àdduna toll na ci ay rëngu-yëngu àdduna toll na ci jaxasoo sëriñ Muntaxa ci mbaaxam ci yërmandeem wax na solution bi solution bi mooy sëriñ Touba nañ delluwaat ci li ñu doon lim ñu jàngal lim ñu jox lim ñu baal ci loolu nag lañu sukkandiku ngir taxawal ay bis fële ci Ndakaaru ci ñaari fan ci weeru janvier ba le 6 janvier ba le 6 ci weeru janvier ci musée des civilisations noires at ci King Fahd Palace nga xam ne dinañ fa exposé photo yu yees yoo yi feeñ nga xam ne dinañ fa exposé yenn ci jeexitalu sëriñ bi dinañ fa jàng ay xasida dinañ fa waxtaane sëriñ tubaa dinañ ko fa bége dinañ ko fa wasaare loolu nag boroom xam-xam yu mag nekk ci rawdu nekk ci université yi nekk ci ci njàngale mi dinañ ko fa amal ci biir loolu nag dinañ fa def li nga xam ne mooy baax yi na yoonu murit mooy manal suñu bopp jëfal suñu bopp lépp tegu ci kaw ndigal moo tax photo yu yees yii dañ koo sotti dañ ko indilee sëñ Muntaxa mu jënd ci téeméer ne dinaa ko jëndal murit saadix yi nga xame ne bëggoon nañ ko se seen doole yeggu fa moo tax ñu sukkandi ci yërmandem jooji woyefal ko ba ñëpp mën cee jot wala bokk ñi ci ëpp dina am buy jar juróomi téeméer benn juróom benn benn junni sëriñ bi ci yërmandeem it mu bind kayit jaa jëfal ci ñi nga xame ne ñooy fàggu photo yi signé ko loolu ñu jël ko taf ko ci kayit mu nekk la version collector nekk juróomi téeméer yi nga xamee ne dañ koy jaay benn bu ne ci million loolu lépp nag bu paree dañ koy dajale ngir tabax ci kër këru barkeelu gi nga xamee ne mooy nekk ci biir université bi nga xam ne lépp liy jeexitali sëriñ bi ñu fexe ko ñoŋal dugal fa donc loolu ci tënk mooy li nga xam ne mooy sabab ay bis boobu bi ay bis boobu yi nag kilifa yi yoonu murit ñu ci bari dinañu fa teew sëriñ Bassirou Abdou Khadre dina fa teew président la république nga xam ne moo jiite réew mi dina fa teew donc ñooñ ci woo Sénégal gépp bàyyiwuñ kenn ñi nekk ci kujje gi ñi nekk ci biir nguur gi ñi yor fonction publique yi ñi yor opérateur économique yi ñiy liggéey ñiy daan seen doole ñiy góorgóorlu taximaan yeeg dawalkati sareet yeeg bàyyiwuñu kenn ñépp la Sëriñ Tuubaa woo bi ñu demee ci président de la République ci ndigalu sëñ Muntaxa dafa jël ab dogal woo ministre de la culture Aliou Sow ne ko patrimoine iconographique bu Serigne Touba kat nañ ko dugal ci patrimoine national ndax Serigne Touba réew mépp ko bokk loolu nag ñi ngi préparer arrêté bi service teg yi ñu ngi ciy liggéey ak waa ministère ba jàpp nañu ne balaa ñu yegg ci bis boobu dina sont njariñul loolu mooy day nekk li nga xam ne dañ ci mën a jog gi ngir loolu ñu mën koo dugal ci patrimoine mondial de l'UNESCO nga xam ne àdduna bépp koy bokk ca penc ndeyu réew ma dina fa am bis bi nga xam ne dañ koy jagleel sëriñ bi di fa waxtaanee am njàngaleem di fa waxtaanee ndonoom di fa waxtaanee ay jeexitalam moo tax ñépp ko bokk Sénégal gépp amul kenn kenn ki nga xam ne bokkuñu fi yoonu murit képp ku fi kilifa képp kuy ab taalibe képp kuy seexub sëriñ tubaa seex sépp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo Baye Fall yi xalif général de Baye Fall dinañ fa dem yóbbul ko kàrtam woo ko ci ndax ku ne sëriñ tubaa ne Cheikh Ibra ku ne sëriñ tubaa ne seex sépp waa daaru musti ñu ngi leen di woo ku lim mënut a jeex amul fenn fenn fenn benn seexi sëriñ tubaa bi nga xam ne dinañ ko tudd Euh, te te woowuñu la ci woo nañ ci ñëpp sëriñ Modou Kara ñu ngi koy woo képp kuy kilifa biir ndakaaru jëwriñ mbàkk yu fay moom moo jiite liggéey bi ñëpp ñu ngi leen ci woo Hizbut Tarqiyyah moom daal nañu xam ne képp ku ñu fàtte sama xel a fàttu waaye ñëpp woo nañ leen ci